fini avec ça il va su ñu ñëwaatee encore ci pouvoir de cassation parce que Ousmane Sonko aussi laata loolu am na dossier bu mu dugaloon en pouvoir de cassation mooy bu ñu yóbbu chambre criminelle bu ñu war a juger le 16 mais boobu tamit moom côté boobu daf dafa cee def lecture personnelle ne juge bi warul woon sax euh, kii a sur le fond sur la forme la waroon mais il a dit pour une première fois on a on a vu un juge euh, de la cour suprême. Mhm. moom moom daal wax ci fond waaw wax ci fond mu nekk loo xamante ne méttal su nekk Ousmane Sonko même attaqué la fekk ndax tamit les choses ne sont pas déjà pliées pour lui. bon en tout cas c'est compliqué man tey Ousmane Sonko pour qu'il se tire d'affaire je me dis que sur le plan juridique. Hmm. Euh, dina dina xaw a jafe. Hmm. parce que en fait euh, les textes sont les hommes sont là. Donc euh, en matière de justice, on a vu qu'Ousmane Sonko quand même, il n'a jamais eu gain de cause. Qu'est-ce qui va se faire pour que ça change? Entre-temps, on sait pas. Mais il a un combat à mener, c'est le combat politique. le politique. est-ce que est foofu ce n'est pas la solution l'ultime solution, l'ultime pas se même hier on a entendu Barthélémy Dias peut-être le dire il a des certains problèmes ne se règlent pas ne se règlent pas peut-être devant la justice mais par la politique mais on a même entendu Abdoulaye Wade l'ancien président de la République le dire il dit que les problèmes de diffamation les questions de diffamation ne se règlent pas sur le plan juridique se là sur le plan politique maintenant est-ce qu'il va aller au dialogue est-ce qu'il va parvenir à maintenir la pression mm-hmm. parce que il a une pression Ousmane Sonko dans tous les cas aujourd'hui dans ce pays là mm-hmm. tey boo xoolee bu ñu génnee tey Dakar Dakar tey foo génn c'est des gendarmes dañoo dañoo quadriller toute la zone moi je viens des Almadies zone boobu yëpp c'est une zone hermétique mënoo jàll mënoo dem parce que y a les les les fourgons qui sont garés a a qui a déployé son dispositif foofu kenn mënu fa mënoo fa dugg mënoo fa brin almet boo ko fa taalee di am problème donc ils ont cerné cette zone là ça veut dire qu'il y a une tension Ousmane Sonko hier il n'est pas venu au tribunal mais on a interdit la circulation des des deux roues démb la journée am dañoo tere deux circuler dañoo tere jaay essence si li nga xamante ni du réservoir fii ba le donc et cetera a pas mal de choses donc quand bien quand même problème boobu am na on on le savait à mhm. mais gars yi nanguwuñu bàyyi affaire bi. donc euh, la dernière on a dit que quand Ousmane Sonko sort. Mhm. pour aller au tribunal ça crée beaucoup de problèmes cette phase il n'est pas sorti quand mais quand bien même il n'est pas sorti il y a au niveau voilà euh, au niveau de la circulation des personnes et des biens mhm. donc loolu dafa di loo xamante ni mais en résumé Ousmane Sonko ce combat il ne pourra le gagner que sur le plan politique d'accord ça c'est vraiment dégg dégg dégg est-ce que du moom ah président Macky Sall ak peut-être ñi nga yëpp ñi nga xam ñoo nekk ci Yewwi Askan Wi toute l'opposition peut-être est tamit c'est pas le moment vraiment ñu essayer de trouver un terrain d'entente pour le bien du Sénégal quand je dis pour le bien du Sénégal parce que tey xam nga actuellement il y a eu quelques quelques quelques manifestations bien sûr, notamment euh, fii Dakar université Cheikh Anta Diop am na mm, à Mbour am na mm, Yoff mm. genre un peu partout quand même su fekkee dina manifestation yu yu comme yu ñu doon xaar mm-hmm. il y en eu quelques-uns tey nañ xaar xëy na Ousmane Sonko dina génn wax ah donc le problème. Mmh. le problème. Mhm. est-ce que du on a intérêt maintenant à aller vers la discussion les négociations pour lu ñuy njort wala lu ñu bëggul mu am ci réew mi mu vraiment ñooñu mu bañ fee am quoi. oui non il faut il faut il faut euh, gis nga même les plus grandes guerres n'est-ce pas se sont réglées autour d'une table on n'a pas le choix. Mhm. tout ce qui va se passer on sera obligé un jour de s'asseoir et d'en parler mhm. on sera obligé de trouver une solution mais léegi euh, zéro mhm. c'est les garanties il faut donner des garanties le président Macky Sall il faut qu'il donne des garanties mhm. il n'a pas encore donné de garanties yoo xam ne dal na xel parce que aujourd'hui nit ñaa ngi wax ne président Macky Sall day woote dialogue pour mën a valider moom troisième candidature am oui mais mais oui mais xam nga comme affaire moom ay suspicion la on peut pas se confiance instant bi opposition bi mënu gëmm tamit Macky Sall ne ko kaay ñu dem euh, dialogue ñu mu tàllal loxo mu téye leen yóbbu leen dialogue quand bien même la dernière fois bi ñu demee dialogue y a eu quand même des euh, mu tudd ay points yoo xamante ne waxtaanee nañ ko mais jëfewuñ ko donc yaay a eu au moins deux dialogues avant y a il veut un autre dialogue actuellement donc il faut mu joxee les garanties c'est au président Macky Sall de donner des garanties mais au-delà de ça aussi il faut que des personnalités neutres se saisissent de la question maanaam foog ñu dugg si il faut mu am mais ana ñoom Famara Ibrahima Sagna bon ñooñu gëj naa leen dégg <laughs> on sait pas <laughs> qu'est-ce qu'ils sont qu'est-ce qu'ils sont qu'est-ce qu'ils devenus peut-être qui se voilà peut-être aussi ñu ngi wax ci suuf mais dégguñu leen leur voix n'est pas audible. mais le rôle du médiateur de la République le juge Demba Kandji. qui a été qui a été nommé en fait c'est c'est c'est que su fekkee ne gens lii lépp moom moom. est que Demba Kandji c'est quelqu'un qui est qui c'est le médiateur c'est très bien mais est que c'est quelqu'un qui est bien placé aujourd'hui pour parler à l'opposition ah xam naa ni antécédent c'est très cher voilà donc am na antécédent yoo xamante ne boo ko amee ak ñenn ñi moo tax euh, euh, comment dirais-je le médiateur de la République man dama xalaat ne saa doit une personnalité neutre koo xamante ni il n'est pas dans euh, dans les discussions politiques il n'est pas dans dans dans dans dans un parti nga xamante ni su waxee ñëpp dinañ ne non par exemple kii nii wax na nañ ko déglu mais tey aujourd'hui si Demba Kandji vient parler à Ousmane Sonko je pense pas que vraiment qu'il soit en mesure de trouver les arguments est-ce que sax Ousmane Sonko dina nangu toog ak moom et cetera parce que sincérité waxtaan bi day des léegi une personnalité neutre man loolu laay xalaat ne moo mën a changer mais aussi n'oublions pas nos chefs religieux mhm. il faudrait aussi à un moment donné que nos chefs religieux jël nest pas les euh, choses en mais parce que suñ ko jëlul gisuma fii ni instant bi au Sénégal kan moo mën a calmer le jeu politique ba nga xamante ni jàmm dina am Ousmane Sonko. Euh, qu'il continue à faire ce qu'il a à faire le président Macky Sall. Barthélémy Diaz Bart oui il avait dit que qu'il <laughs> qu'il irait à Touba c'est ça. Mhm. qu'il irait à Touba voir. Euh, voilà non c'est le porte-parole qu'il devait aller voir n'est-ce pas. sëñ Bass sëñ Bass Abdou donc c'est bien mais bon il va là-bas pourquoi on sait pas donc il a son agenda c'est un politicien il mais mais mais mais mais sëñ Bass Abdou Khadre il est l'ami de tout le monde finalement dans pays là donc euh, ñëpp dañuy wax ne bon tous les politiciens mosuma gis politicien bu ne sëñ Bass Abdou du sama xarit du sama xarit mosoo ko dégg mais est-ce que tamit du du du un homme comme lui c'est bien mais dama jàpp ne même on a besoin d'une autre voix mm-hmm. gis nga voix bu ko gën a kawee sax moom gars vraiment c'est c'est un porte mais on a besoin d'une autre voix voix boo xamante ni dina mën a fédérer nga xamante ni su waxee rek ñëpp dinañu tënku ne ah on va l'écouter même su nekkee duñu d'accord sax on va l'écouter bu xoolee parti bi ne bàyyi leen lii dinañ bàyyi ñi ñi bàyyi ñu bàyyi ñu mën a parce que il faut que mu am compromis forcément il faut que des deux côtés que l'opposition am lu mu bàyyi pouvoir am lu mu bàyyi léegi d'accord léegi Ousmane Sonko tey suñ ko doon xelal naan est-ce que duñ ko xelal comme li gars wax gàtsa gàtsa gi mu woote mu bàyyi ko dëgër bopp gi mu bàyyi ko mu genre mu nangoo rentrer dans les rangs tegu ci raay bi président Macky Sall mu bokk si si si biir système bi wala. non en fait par exemple wax xam nga ne Ousmane Sonko il est trop radical. Mm-hmm. maanaam radicalisation bi nga moom Ousmane Sonko xëy nga xamante ne au moins dina neex a waxal ah a waxal te tamit ñoo ne ñi nga xam ne ñoo ne fi nekk yor yat bi di dóore ñu téye yat bi ñu bàyyi nit ñi dóor tamit. waaw mais effectivement donc Ousmane Sonko tey xam nga tey mënoo jékki-jékki ne Ousmane Sonko na bàyyi euh, gatsa gatsa gi muy woote parce que gatsa gatsa bi quand c'est une suite logique c'est une suite logique par exemple Ousmane Sonko tey dafa dem ñu jàpp ko au mois de de mars mhm. si ma mémoire est bonne 2021 naroon ko yóbbu tëj il a fallu n'est-ce pas que la population prenne les souse en main pour que Ousmane ko mën a retrouver la liberté donc moom xam na ni moom lu muy am te xam na ki mu jàkkaar aussi mooy président Macky Sall Macky Sall président la boo xamante ni yombul nga négocier ba am li nga bëgg yombul ñi négocier ak Macky Sall yëpp il a fini par euh, <laughs> par avoir voilà par par par les écarter. Mhm. Khalifa Sall à un moment donné il a joué la carte de la paix la carte de l'apaisement fan la mujjee dañ ko tëj. quand bien même euh, Junior euh, sëñ Abdoul Aziz Junior en son temps il a fait des pieds et des mai pour pouvoir quand même régler le dossier Khalifa Sall mais dara. donc xalifa euh, il a fait il a fait il a, il a je sais pas combien d'années de prison bala muy génn euh, comment il s'appelle Karim Wade le khalife euh, des Mourides Serigne Cheikh Sidi Makhtar il a joué un grand rôle n'est-ce pas pour que ñu libérer ko malheureusement en tout il a fallu il a fallu que le procureur du Qatar n'est-ce pas dans une mission extraordinaire on ne sait pas c'est quelle mission en tout cas le protocole de Rebeuss <laughs> donc il est sorti de ce pays-là il est parti en exil entre guillemets on dira qu'il est parti en exil parce depuis donc loolu doon na loo xamante ni aussi Ousmane Sonko daf si jàng parce que moom démb sax euh, barki démb bi mu wax si discours am dafa ne man duma Khalifa Sall. parce que dafa jàpp ne ñooñu peut-être ils ont eu confiance ils ont cru que les choses n'allaient pas euh, n'allaient pas aller en leur défaveur ñu gëm ñu dem affaire bi demee nee na moom léegi instant bi moom rapport de force te moom nee na Macky mooy ki nga xamante ni du nit koo xamante ni gëm na dialogue gëm na négociation moom foog muy am rapport de force muy sentir ne bu xëccee fii fee bu ñu xëccee day dëgër comme ça ñu mën a trouver solution mais dans tous les cas xëcc mënul indi solution ah, mënul indi